leen ak jàmm coowal Kouthia li ci TFM njawa nga wéy di xam bi Kouthia audio yi nga xamante ni bi fuite woon na démb ba Amina Poté génn def de presse mu ngi mel ni fi nekk nii a aggravé wu maanaam situation boo xamante ni bi kenn mënatu ko contrôler la ñu nemmeeku ca Télé Futurs Médias audio yi Kouthia yooyu nga xamante ni bi ma nga wéy di fuite beneen bu ci gën a fuite rek nga gën a dégg musiba ci yooyu la audio ki ko fësal démb moo di Adamo mi doon amalub live boo xamante ni bi daanaka amul benn audio rek ni bi ñu ko ci ci audio bu gën a ñëw gën a doy waar ginnaaw Amina Poté Viviane ak doomam Zeyna Ndour audio yi ndekete déggaat nañ ci Pape Cheikh Diallo Kouthia di ko yakkaat lu mel ni xeme dégg nañ ci itam ay jabaram ku ci mel ni Kya Aidara mi fi mujjee tàggool kamu takkoon ca Sweden ak doomi ay da ji fi doon sëyal loolu lépp musiba ba kumba miñ ci wax loolu lépp a ngi ci live aadamooy ndekete Kouthia yamul foofu rek wax na ba wax ci ndem si yàlla njaay njaay mi nga xamante ni bii dafa faatu bi muy toll dëgg-dëgg ci digg feebaram feebar bu metti bi ko daloon ba Sénégal yëpp àndoon ak moom di ko jàmbatle feebar bi ak di ko ñaanal ndimbal ak di ko naqarlu ndekete booba Kouthia itam am na leneen lu mu ci wax lu gën a doy waar loolu lépp boobee paasub Adamo da nga ko ci fekk leneen loo fay fekkaat bokk na ci Collé Faye Collé Faye mi nga xamante ne bii ñi ngi ñuy wax ci ay audio yoo xamante ne bii Kouthia daf ko doon marabute Kouthia ak la mu doon wax ak Serigne Mbacke garab ga nam ko war a utiliser ak nam ko waroon a def loolu lépp a ngi ci biir page Adamo Kouthia ak yi nga xamante ne bii def na ko ba tey itam bàyyi ji wuñ ci Alassane Mbaye Alassane Mbaye itam am na ci wàllu yaatu ab pàcc bu yaatoo yaatoo yaatu boo xamante ne bii léegi mu ngi ci biir audio yi leneen lu nekk ci biir audio yi mu di mbir mu doy waar Boubacar Ndour mi ñuy wax naan moom itam mook Aïcha dañoo am doom loolu lépp a ngi ci biir audio yi mu nekk audio yoo xamante ne bii fi mu nekk nii daanaka sénégalais yi talatuñu dara ndax yooyu le audio ñu doon wax coowal tabaski fi mu nekk nii yooyu le dafa mujjee freiné yëf yi ku caak avenir am ak ëllëgam nu mu nara deme demee loolu lépp moo nar a jaaxal sénégalais yi wax ji nga xamante ne bi nemmeeku nañ ko ci biir audio yi wax yu doy waar ba jéggi dayoo diggante Samba Sy nag ka mu doon waxtaanal Kouthia nag génn na wax ba muy wax ak Adamo ma ngi koy expliquer naan ko ki nga xamante ne bi moo fuital audio yi jabaraam la jumu takkoon ñu ko woowee Kya ma ngi ñuy nettali itam ne moomu la Kya defoon na ko ay menace bu yàgg ne ko dinaa la yàq dinaa ne sa carrière moom Kouthia séenoon na lii bu yàgg muy ñëw ne bii fi mu nekk nii sénégalais yëpp ngi yéem ku ci nekk yaa ngi wax naan kan la ñu war a wóolu ana kan la ñu war waxtaanal ci téléphone ak nan la ñuy def ba mucc ci coowal téléphone mu di mbir mu critique moo xamante ne bii fi mu nekk nii sénégalais bu nekk yaa ngi ci amal saw jàngat wax ci leneen loo xamante ne bii soxal na Karma série bi di Karma Maguette Fall di ab actrice bu fa nekk marié wu na kamu marié la ab ivoirien la daanaka ab artiste ivoirien la loolu la ñu xam ci moom Feeling Dakar di ko souhaité heureux ménage moom Maguette Fall ñu gën koo xam ci Nathalie wax ci Wally Ballago Seck yëkkati dix millions de francs CFA séddale ko ay famille ci tabaski gi ngir mën leen a jàppale ñu am lu ñu tabaske Wally Ballago Seck geste boobu nga xamante ni bi def na ko te itam chaque tabaski mu di ko def ngir jàppale néew ji doole yi loolu yi di mbir moo xamante ni bi ñu ngi ko partagé fépp ci réseaux sociaux leneen lu ñuy partagé ci réseau social bi jëm ci Wally Ballago Seck moo di dàll yi nga xamante ni bi solo na ko keroog ba muy dem ca émission ba moom ak Bijou Ngoné di dàll yoo xamante ni bi daanaka ba nu ci émission ba adduna yëpp moom Balago Seck dëgg-dëgg nag Wally Ballago Seck noppaloo say fans Wally Ballago Seck Ndeye Fatou Diaga noppal na la waaye yow noppaloo say fans ana ñun say fans bu ñu jógee ba jàpp rek ne fi mu nekk nii am nañu ndam te itam mën nañoo noppali nga jógaat teg ñëw naqar dàll yi nga xamante ni bii sol nga ko mu di dàll yoo xamante ni bii dafa am arc en ciel di couleur LGBT ana Wally Ballago Seck lan moo taxoon ngay sol dàll yu ni mel ndax it nag ba nga solee tiset bi coow li nii la la toppe woon am Wally Ballago Seck indil Wally Ballago Seck ñun say fans ñuy xuloo lu nekk ñu daj ko dem ba yaakaar ne fi mu nekk nii jeex na ba ñu la tegee ab injustice ca Dôme de Paris itam ñu taxaw fu ne ñu jàmbaat ko fa taxaw jàppale la ba nga génn ceeg ndam ana lan nga ñu mënoon a njukkal lu dul ñëw ci télé bi di sol dàll yoo xamante ne bi ku ko sol ñu duut la baaraamu tuuma Wally Ballago Seck dëgg-dëgg waroo woon a sol yile dàll ay fansam ñu génn ci TikTok bi di def ay vidéo di kaas jàkkaarloo ki nga xamante ne bii mooy seen fans di Wally Ballago Seck bu fekkee ne ay fansam ñi ngi kaas itam am na ñoo xamante ne bi ca genn wàll ga ñenn ñi ay mbokkam la ñenn itam jege ñaaleem ña ngay wax rek naan Wally Ballago Seck dafa fichen li mu def nii dara nekku ci naam duñu wax nañu Wally Ballago Seck xamul lu mu def ndax it nag ba mu solee tiseet baag coow la ko ca toppoon coo lii le yàggul dara ba mën ko fe fàtte ci diggante loo ci man di dégg waaykat bi di Wally Ballago Seck am na ci ñoo xamante ni bi ña ngi koy yàq fi mu ne nii lu mel ni xamee ci internet bi fépp foo tijj yaa ngi gis dal yamu sol di couleur LGBT ña ngi koy partagé ñenn ñi sax ña ngay wax naan Wally Ballago Seck heure bu mois de join jotee rek mu def defati mëni na Wally Ballago Seck dafa mel ni coow li moom yëgalu ko yaramam ndax Wally Ballago Seck ma ngay continuer rek di def ay distribution de mouton muy def maanaam ñi nga xamante ni bii ma ngi leen di dimbale ngir ñu am lu ñu tabaske wax ci jaamaan bi nga xamante ni bii moo waroon a dem le 17 juin ca Canada ca Québec ga ne ca Canada fala fala jaamaan waroon a amal fab concert waaye jaamaan itam li tax mu annulé concert boobu moo yéem ñëpp ndax it nag naam ñu ngi nemmeekuwaat ak dal fi nga xamante ni bii moo di réewum Sénégal jaamaan ne lool yi taxul daal fi mu nekk nii mu mën a amalub concert réew mi ak fi mu toll ak contexte réew mi mayu ko xel mu dal ngir mu dem di man a toog ci bitim réew di way lii lay waral mu daal di jël boobu le concert a ko teg fi suuf moom jaama Keba Seck def na ay révélation yu doy waa ci doomam ji wali Wally Ballago Seck Keba Seck ba ñu koy interview bërki dem di ko laaj ci doomam ji Wally Ballago Seck nee na mooy le number one Wally Ballago Seck mooy le centre du peuple Wally Ballago Seck bu jàllee ba noppi ci laay ñëw man Keba Seck li wér te wóor mooy Sénégal bokk na ci ñi nga xamante bi ñoo fi teg tànk kon nag mën nañu koo woowee le number itam fierté la man mi di baayam di Keba Seck Soda Bousso wax na ci Youssou maa jigéen Ndour Soda Bousso nee na Youssou Ndour jinne la Youssou Ndour ñii di ko fexeel nañu ko mooy man de Youssou Ndour képp ku koy fexeel danga ma yéem man Soda Bousso ndax Soda Bousso mag ñuy nettali émission ba nga xamante ni bii toogoon na ko Pape Cheikh Diallo di def ay révélation ci Youssou Ndour ma ngay wax naan Youssou mi nga xamante ni bii moo way Dakar ga ci yoonu Mbadaan ndax da a déggaat mi nga xamante ni bi moo fi wax ci gaal gi laa ko fekk mi ngi sàngoo sër bu weex loolu yëpp di ay mbiri jinne yoo xamante ne bii war naa tax ñu mooy yuusu maa jigéen yuusu du ku ñuy fexel man soo da bu sa daal képp kuy fexel yuusu nduur dama lay ragal yuusu nduur jënn jëmm la joo xamante ne bii war nañ ko bàyyi xel Mohamed Alla joob di doomi Alla Diop chanteur religieux la révélé na doy waar ab relation boo xamante ne bii relation amoureuse la bu mu amaloon ak ki nga xamante ne bii moo di kat yi di jaara Cees ñoom ñaar seen relation Mohamed Alla Diop di ñu annoncé rek ne donte lu amoon laay fi mu nekk nii relation ba jeex na bu yàgg donte jeex na itam duma ko niye benn yoon man ak moom dañ doon génn maanaam dañoo nobante woon waaye loolu lee lépp fi mu nekk nii teg nañ ko fi suuf wax ci une très bon nouvelle boo xamante ni bii soxal Cheikh Bara Ndiaye soxnaam si ëmboon wasin na boobaak tey ñu ngi ñuy annoncé ak di ko partagé fépp ci réseau social bu mel ni Cheikh Bara Ndiaye mi nekk ci kaso bi ak ba muy dem ci kaso bi dafa bàyyi woon jabaram ëmb ba diis ñëpp ngir mu wasin am stress moo ko jàpp ba mu far wasi loo ci man di dégg jabari Cheikh Bara Ndiaye wasin na ci jàmm te itam am na doom ju jigéen ju rafet boobaak léegi ku nekk ngi yëkkati ay kàddu di ñaanal Cheikh Bara jaay waaye di ñaanal jabaram ak doom ji nga xamante ni bi am nañu ko wax ci weneen kaawtee foo xamante ni bi am na ci Sénégal Sénes Ndaw moo doon accouché rek mu doon lu méttee métti ndax ba muy accouché dafa accouché ay triplé ñetti doom la accouché ba noppi moom ndaw si mu daal di fa jaare ñàkk bakkanam lii lay di lu loo xamante ni bi ay mbokk xam fi mu nekk nii kenn mënu leen a consolé ndax ñetti triplé yii mu fi bàyyi. jaangeen jëf waay wax Sénégal waa jaangeen jëf ñi nga xam ne yéen a ngi biir Paris ak ñi nga xam ne ñoo ñëwoon Paris ci événement bi nga xam ne mooy Wally Seck bi Dôme de Paris képp ku ñëw nag benn adresse rek la mooy la Falilou 14 rue Chabrol defe naa ni buñ duggee ci biir di ngeen xam li nga xam ne moom la fi aji ki moom restaurant bi li mu fi def maanaam ni mu ko rénové pour clients yi pour le de ses clients donc euh, restaurant bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp di wër moo xew moo set moo neex la falilu ay ñu dem ci biir gis nga ambiance sénégalaise la client yi ngi toog di lekk di bége jaayef grand nuyu nañ la waaw ñii ñoo nekk ci kii bi ki mooy laay ku fi ñëw laay nga fi fekk fekk fi Idi fekk fi Malick fekk fi Paco yee Malick ah dañ la bett sa kër gi bienvenue. waaw tey nag waaw. bienvenue euh, restaurant bi nga xam ne sénégalais yëpp nee nañ fii la. maanaam fii lay tàngee. fii lay neexee. fii la jàmm ji ne. te dégg naa ne am na ay spécialités yu bees yi ngeen génne. dama bëggoon nga wax àddina. wax waa France ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Europe bi di fi ñëw. buñ ñëwee lan la ñu fekk ci Falilou bi nga xam ne mooy ñëwlu ko. comme euh, ni mu ko waxee léegi rek. di leen waxaat bienvenue ci restaurant Le Falilou bi nekk fii 14 rue de Sabrol dans le 10e arrondissement Paris voilà kër gaa ngi ni comme ni nga ko gisee waaw sénégalais yëpp fii la ñuy tajee star yeeg autorité yeeg ñëpp daal fii la am na ceebu jën lépp lu ngay gis Sénégal ceebu jën yaasa poulet maafe suppu kànja am na cere am na vermicelle am na poisson grillé boo bëgg coof capitaine tilapia dorade yépp am na fii am nañ ay jus locaux aussi. justement foofu laa bëggoon ñëw ndax jus yi am na yu ma ci dégg yoo xam ne yu doy waar la. parce que xam nga boo nee sénégalais moom forcément fu muy euh, ñëw di lekk war na fa fekk bisaab war na fa fekk jinjeer war na fa fekk buy yooyu yëpp am na fi am nañ tamit ay cocktail yoo xamante ne nii euh, c' est typiquement euh, sénégalais mun nañ ko wax voilà so tur sax boo ko déggee da nga xam. jox ma tur yi xool. am nañ boo xamante ni kër gi lañ ko tuddee mooy la Falilou am nañu ñokoloko ba am nañ la Kayoor. am nañ euh, Paris Dakar am nañ euh, Saint-Louis yooyu yëpp ay euh, cocktail la yoo xamante ni nii ñoo koy defar fi cocktail yu neex yoo xam ne client clients yi bëgg nañ ko apprécier nañ ko franchement voilà te comme ni nga gisee rek ni clients yi di ñëwee ni lay demee ambiance bi moo fi nekk ñu ngi liggéey ci jàmm ak salaam sama collègue yi fi nekk nii ñëpp comme ni ngi leen présenté léegi Laay Idi Paco ñoom Ndey Soxna Rama ñi nekk si cuisine bi tout ça franchement ambiance bi bi fiy régné moom neex na trop. c'est vraiment le Sénégal. est-ce nga joxe adresse bi. adresse bi c'est au 14 rue de Chabrol 75 010 Paris. et le numéro de téléphone. c'est le 09 54 09 09 92. kon sama gars yi ni ngeen ko déggee noonu rek la duma leen nax li ma leen di wax loolu rek am fi nga xam ne ku fi ñëw bëgg. ñoom duñu génn lu bari waaye saa yu génnee rek gën ñëpp loolooy la falilu neex neex fii daal sama kër la parce que soone sama rakk la xam naa ko depuis Dakar te saa yi may ñëw naa fi jaar bu njëkk ba fële laa daan dem beneen bi tey suba laa jóge Dakar sama rakk bu jigéen boo xamante ne ñu bokk ndey ak baay bëgg lekk mu ne ma demal defal lu un di lekk ay ay brochette lekk di lekk ay dibi te rëccuwuma ko fii daal kër gi la waaw li ma koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla jëmale kanam li mu bëgg yëpp yàlla defal ko ah fii doon waaw ku baax Dakar moom fuñ su ma su ma ñëwee incha allah ku ma la demal fal kon fii la waaw tur bi rek sax jar na ko. message bu daw pour jàmm ji. waaw jàmm ji moom moom la ñëpp di ñaan. Mhm. yàlla ñu yàlla may jàmm réew mi moom. ñu réew mi bu ko dara yàq quoi. vraiment ah parce que ay nit ñu baax la ñu ñun ñëpp bokk ndey baay yàlla nañu yàlla may ñu juboo ah bi aussi yaa gars yi bàyyi ci xel xam ne ñoo bokk ndey baay loolu daal lay ñaanal Sénégalais yi quoi ah. ah. waaw mais soxna si. oui. naka mu. ça va alhamdulilah. ci loo ne. maa ngi si jàmm bu baax yow nag. da nga ñëwoon añ si. waaw da nga ñëwoon añ si fii la Falidou. ok da ñëwoon pour concert Wally bi aussi. oui dama jógee Tali ñëw pour concert Wally bi tout mais depuis lors fii laay añee. Mhm. fii laay reeree tout. Mhm. vraiment. noo gisee restaurant bi. oui macha allah accueil bi baax na dinañ la mettre à l'aise vraiment rien à dire. lekk yi neex trop. set na. trop billaay. yow foo jóge itali ba fii ñëw añ ci Falelu. toujours. looy conseiller sénégalais yi kon ci mbir mi. képp ku dëkk fii rek am nañ chance bi keroog rek dama wax ni que la moo tax ñëwuñu pour ubbi Italie donc képp ku dëkk fii rek ñëwoon nga añ si fii parce que neex na sell na te accueil bi c'est très bien macha allah. kon merci beaucoup. merci à na Falilou yéen a ko doon laaj. ubbi waat na. taaru lool macha allah. ak yi plat yu délicieux. set sell civilisé. mën nañu daal du ngeen namati daray Sénégal ak restaurant na Falilou. ma nga Paris 14 rue. rue de Sabrol. 75 010. téléphone bi du 095. 409 09 92. restaurant na Falilou yéen waa Paris du ngeen namati dara lu neex. bienvenue à votre restaurant Falilou. 75 010 Paris the yi ñëw leen gaaw ñu ngi leen di xaar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 Dakar, notre plateforme d'information.